salaamaaleykum askanu Sénégal salaamaaleykum askanu Thiès maa ngi nuyu ñëpp rawatina suñu mbokku journaliste yi nga xamante ni ñëw nañ tey jii couvrir ci conférence de presse bi nga xamante ni. woote naa ko ci format bii nga xam ni format annuel la parce que maa ngi ko tuddee discours sur l'état de la ville de Thiès ngeen ñëw ngir jottali ko askanu Sénégal waaye surtout ngeen jottali ko askanu Thiès ñu may ma ma wax tuuti ndax contexte bi nga xamante ni ci la conférence de presse bi di amee contexte yëngutu la yu ànd ak fitna ba ñenn ñi ñàkk ci seen bakkan ñenn ñi am ci ay gaañu gaañu ñenn ñi nekk ci biir kaso yi famille yi nga xamante ni dañ ci am ay jege ndax fitna yi nekkoon amoon ci réew mi maa ngi leen di jàll di leen wax si di leen diggaale di leen ñaanal ñi ci dem suñu boroom xaare leen ajjana xëpp leen yërmande ñi ci am ay gaañu gaañu di leen massaw ñi ci nekk ci kaso yi aussi di leen massaw di ñaan en tant que maire euh, jàmm dellusi ci réew jàmm ak dal dellu si fii ci suñu dëkk Cees yi ndax jàmm ak dal ci la ñuy tabaxee développement sécurité ak dal ci la ñuy tabaxee tabaxee développement fu dal sécurité jàmm amul foofa développement mënu faa am kon di ko ñaan ñëpp waaye di ñaaxit ñëpp ñi nga xamante ni ñoo yor nguur ko ñu góorlu ci état de droit ndax état de droit dina suuxat jàmm dina suuxat dal dina yokk sécurité ndax dina tax ñi yeewoo ci dëkk bi yeewoo ci réew mi xam ni am nañ ay droit yoo xamante ni bokk nañ ci état boo xamante ni lu mënti xew dina leen ko garantir loolu lépp loolu laa bëggoon a ubbee ndax jàmm ah niñ ko waxee ni ko maam Cheikh Ahmadou Bamba waxee moo gën fii moo gën fu ñu jëm ci ku ko ñàkkee rek di ko yëg bu loolu weesoo may waxtaan tey jii ak askanu cees ci li nga xamante ni noonu laa ko diggantewaale woon ak ñoom lii ñu ñu dénk di dëkk bi ñu yor ko ci transparence ci leeral lépp lu ñu war a leeral sans ndax li ñu yor moomuñu ko ñu yor ko ci reddition des comptes maanaam fu liggéey bi toll rek ñu wax ko askanu Thiès ah lii de def nañ ko ah lii de am na rëq-rëq ah lii de am nañ ci yéene waaye ñu def ko ci participation citoyenne maanaam li ñuy doxal naam ñun lañu dénk waaye askanu Cees di xale yi di mag ñi di ndaw yi di intellectuel yi di communicateurs yi ñooñu ñëpp ñu bàyyi ci seeni xel ñi indi seeni participation ci liggéey bi nga xamante ni moom lañu yor kon ci liggéey boobu ñu yor fii ci Thiès bi ñuy jël mairie bi di ñëw dafa amoon benn fonds bu fi nekkoon ñu koy tuddee fonds Pacasen nekk fonds bu am doole boo xamante ni. day jàppale municipalité yi ndax amuñu doole pour ñu mën a liggéey yenn projet yi ci investissement moom la maire yu bëri yaakaar ngir jóge ci fonctionnement def ay réalisation yu am solo ci investissement ah yàlla def fonds boobu exercice bi passé ñu perdre ko Thiès ñàkkoon ko ci loo xamante ni ci équipe bi fi nekkoon la aju ndax ay points la yoo xamante ni soo ko amul mën nañ la éliminer lu say points yi gën a bari moo gën ah bi ñu ñëwee ñu góor góorgóorlu ci lu ñu man liggéey ci ak suñu administration liggéey ci ak ARD di ci def ay réunion périodique ba semaine bee ñu génn résultat yooyu génn na cette fois-ci yàlla dimbali ñu ville de Thiès admise waaye non seulement ville de Thiès at mi na ren waaye ville de Thiès moo jël premier ci Sénégal yépp lu musul am dans l'histoire de cette ville Pakaseen ñoo jiitu Dakar ñoo jiitu Grand Yoff ñoo jiitu Mbour ñoo jiitu Touba ñoo jiitu ville yi nga xamante ni ñoo doon référence ci Pakaseen ci CMO yi ci IDP yi ñu ngi ci quatre vingt 81 point loolu di liggéey bu ama am solo boo xamante ni maa ngi ciy rendre hommage administration bi nga xamante ni ñoom laa ko bokkal di wane ni lépp moo mën a ne détermination engagement volonté pakaseen boobu ñu gañe ko li tax mu am solo dañ ciy xaal xaalis bu bëri waaw loolu tax mu am solo l'année prochaine dañ ciy xaar xaalis bu bëri mënaguñu leen a wax nii la toll ndax résultat yi rek day doog a génn ah mais bu génnee ba xaalis boobu ñu xam ñaata la dinañu ñëw wax li ni la Thiès de dina jot nangam ci xaalis nu mu gën a bari rek moo ñu gën gënal ñun dinañ leen wax xaalis boobu aussi fan lañ koy dugal ndax avec ñun lépp a transparent dërëm bu ci nekk rek dinañ leen wax fañ koy dugal ca lépp dinañ ko dugal ci li nga xamante ni mooy yéene projet yitte waa Thiès kon daal ngeen xam ni PACASEN bi ñu ñàkkoon daaw nga xam ne lu mu néew néew daaw ñàkk nañ cinquante millions ren jotaat nañ ko non seulement jotaat nañ ko waaye ñoo jiitu ci Sénégal PACASEN bi nag am na commune yu bari yoo xam xaalis bu bëri lañ ci am am na ñu am ay milliards ah ñu nit ñu yaakaar ba xam xaalis boobu nan nan lay toll bu loolu weesoo ci PACASEN boobu am na beneen nouvelle beneen nouvelle bi nga xamante ne am na maanaam bi ñuy doog a jël municipalité bi di tàmbali liggéey ci sama volonté maanaam lépp lu alalu cees lépp di luy propriété communale Thiès moom ko ville de Thiès moom ko mon engagement à ce loolu ñun jëlaat ko tegaat ko ci loxo ville de Thiès loolu vision la di axe bu am doole ci li nga xamante ni noonu la municipalité bi di def amoon na fi dossier Mikelan ak coow Cees waay yu diffusé wu ci nekk sa xalaat ma mën leen koo nangul nag ndax yàlla mënta maye nga jiite ca ni nit ñi duñu wax seen xalaat waaw ma mën leen ko nangul ku ci nekk sa xalaat ma mën a nangul journalistes yi seeni xalaat commentateurs yi seeni xalaat réseaux sociaux yi seeni xalaat waaye li ci doon suñu xalaat mooy ti Mikelan bi nekkoon ku xam taarixu Thiès ku xam démb Thiès xam nga ni foofu jardin public la woon ma amoon détermination nanguwaat ko ñu dellu ko mu nekk jardin public ndax loolu mooy xolu Thiès dëkk day am espace vert dëkk day am espace de vie dëkk day noyyi waaye duñ tabax lépp privatiser lépp def lépp ay centres commerciaux lépp di jaay ñëpp di jaay déedéet dëkk surtout lu ñuy tuddee ville ville chaque jour ma wax ko ni ñun cees ak suñu orgueil yépp deuxième ville du Sénégal waaye soo ñëwee ba ci maire bi nga xool ni Thiès di doxe xam nga ni fii ville nekku fi wala ville fantôme moo fi ne ndax ville bu ñu koy wax ay norme la li ci jiitu woon mooy le cadre de vie mooy espace public yi nga xamante ni dañ ko privatiser espace public yi nga xamante ni ay privé dañ fa topp espace public yi pri public yi nga xamante ni wala muy propriété communale yi nga xam ne ay entreprise dañ fa toog ca la ñuy fay baaxul di exploité di exploité la ville de Thiès mon engagement ma détermination bi ma leen waxoon ni leen espace yooyu dinañ ko nangu ah coow li bari woon ci torop torop ah ñi dem ci tribunal ndax it dëkku yoon la ne képp koo xamante ni yaakaar nga nii mairie dafa dal ci sa kaw ca nam ko doxale baaxul am nga droit nga dem ci yoon loolu ma nangul ko ñëpp ah ñi dem ci cour suprême cour suprême dëggal ni sama décision bi dafa baax ca tegu na ci yoon tegu na ci charte réew mi tegu na ci loi réew mi violé wu ma benn texte mbir mi delloo nañ ko ville de Thiès tey bi loolu aussi xibaar la boo xamante ni mën naa ko jox waa Thiès ndax coow lu bari woon na ci torop mu des beneen xibaar ndax it indi woon na fi coow dafa am benn titre foncier muy TF 6000 12000 mètres carrés nekk fii ci Randoulène tiitre foncier boobu foofu la cinéma amitié nekkoon démb. ville de Thiès jënd ko ci 2002 xaalis bu takk ñu jënd ko encore une fois de plus maa ngi nuyu di gërëm sama ndijaay suñu tonton Abdoulaye Diop ancien ministre des finances ndax rôle bi mu joué ci Thiès bi muy jënd titre foncier boobu dafa fekkoon mu nekk ministre des finances un grand Thiessois maa ngi nuyu suñu mag le président Idrissa Seck ndax kenn du fakk jëf en tout cas man duma fakk jëf déedéet lu nit defal Thiès lu baax ma xam ko dinaa ko wax Idrissa Seck rôle bi mu ci joué ndax booba fekk na mu nekk directeur de cabinet di président Abdoulaye Wade pour Thiès jot ci titre foncier boobu ndax titre foncier boobu dafa jafe woon pour Thiès jot ci maa ngi nuyu aussi le président Abdoulaye Wade rôle bi mu ci joue j'ai encore la j'ai avec moi la lettre du président Abdoulaye waar bi mu envoyé ministre des finance di ko wax na yombalal procédure bi pour Thiès mën a jënd titre foncier boobu titre foncier boobu ñu jënd ko Thiès ki suñu xaalis ki suñu ñàkk yaakaaroon ci chantier de Thiès yi ay infrastructure yu ñu ci yaakaaroon ba mu tàmbali woon xiiro ak ngaayoo politique tax ñi arrêté travaux yooyu bi mu fi amee ci 2010 ay étudiants grévoon ndax université amoon ay jafe-jafe ah waa université abboon ko ville de Thiès ndax ay jafe-jafe yu ñu amoon ñu abal leen ko ah jamono dox ba ñun ville de Thiès li ñu moom ñu soxla ko bi ma ko laajee université indi woon na fi aussi ay yëngu-yëngu indiwoon na fi ay coow lu ne dégg naa ko ci waaye lépp mujj ñëw ci dellu ci dal foofu foofu ngeen may ma maa ngi ciy gërëm le président de la république Macky Sall xam nga lu tax bi mbir mi amee am na na ne nu ci mënoon a taxawaat taxawe kon jaxasoo aussi day yokk rek ndax ñun jëloon nañ suñuy avocat jëloon nañ pooli avocat waroon na dem ak yoon ci justice bi mu fi ñëwee ci polytechnique grandes écoles mu ni ma jaru ko état état la ñépp a ci bokk ca droit moo am solo te document yi ma gis xam naa ni ville de Thiès moo am dëgg dinaa wax monsieur le premier ministre mu jël le dossier en main lépp dellu ci yoon may gërëm aussi la primature le premier ministre Amadou Ba mu convoqué ci ay réunions yu bëri yoo xam ni ñun ville de Thiès université ak état du Sénégal waaye aussi ma gërëm ci le nouveau ministre Abdou Moussa Baldé bi mu ñëwee dafa nekk nit ku dal nekk nit ku nite wut solution wut jàmm wut dal wut nu ñu tabaxee noo xamante ni. dinañ mën a delloo waa Thiès wala dinañ delloo ville de Thiès lu ñu am yooyu yépp waxtaan nañ ci benn ñaar primature ba d'accord nañ ci wàllu droit li ci am solo droit mooy état du Sénégal xam na ni une ville de Thiès moom moom foofu université xam na ni ville de Thiès moom moom foofu léegi li ci des ñoom li ñuy ñaan mooy surtout auditorium bi ñi ñaata weer wala ñaata at lañ leen ko mën a abal seen étudiants yi continuer fa mën fa jàng en attendant ñoom ñu tabax auditorium mën a ñibbi ca loolu aussi lu xel war a mën a nangu la ndax auditorium bu toll noonu doo xëy xëy rek tëj ko noonu la fa nekkoon ci auberge auberge des jeunes ñu bëggoon fa def seen rectorat ñoom arrêté nañ travaux yi ku fa jaar xam nga ñu fii travaux yi arrêté nañ ko ca ñoom aussi nangu nañ restituer ko ville de Thiès loolu moom amul xaar ici maintenant donc engagement yi mu ñu amoon donc ñoom dañ koy restituer ville de Thiès maintenant ñu may leen benn at wala ñaari at yoo xamante ni ñoom ci 24 mois ñu tabax am nañu xaalis bi ñu tabax auditorium bu ñu fa tabaxee auditorium fële ci université bu Thiès ñoom ñu mën a ñibbi université mën a delloo ville de Thiès auditorium bi nga xamante ni ci wàllu culture li mu mën a indil Thiès en terme de perspective au plan économique au plan culturel waaye ñu mën a jotaat ci auditorium bi ñu mën a jotaat sur l'intégralité du titre foncier TF 6000 qui fait 12000 mètres carrés nga xamante ni bu ñu ci toogee ñun waa Thiès ñu waxtaan ci investissement ya fa war a mën a génn mën na génn mën na financer projet yu bëree bëree bëree bëri donc ci université de Thiès boobu bu ngeen seetloo xam ngeen ni jàmm dellu siwaat na ci dal dellu siwaat na ci waaye aussi mu ciy gërëm waa université ci seen i taxawaay ci xam ni donc responsabilité moo am solo xiiro ak ngaa ñu amul amul njariñ donc loolu di ci gërëm professeur Ramatoulaye Diagne Mbengue mi fi nekkoon recteur ci tey jii mu dem ma ñaanal ko jàmm ci yeneen fonction yi nga xamante ni moom la moom la nekk di ñaanal aussi Babacar Ndiaye le nouveau recteur bi nga xamante ni yegsi na di ko ci ñaanal jàmm yàlla may ko ci succès beneen dossier muy Sonatel ak CBAO ci espace yi nga xamante ni ñoom dañ ko occupé Sonatel 1000 mètres carrés CBAO 800 mètres carrés di fay ay sarax Thiès sarax sarax laa ko mën a tuddee bu ñu xëyee jël mburu dagg ko. jox ko waa Thiès et j'ai dit que loolu mënul wéy avec Sonatel on a fait plusieurs réunions la Sonatel a manifesté volonté ñu revoir le contrat je dois être honnête def nañ plusieurs réunions techniques ak Sonatel ñu nekk dans li disposition ci suñu dernière réunion bi ñu mujj am ak ñoom ñu def leen une proposition nous au niveau de la ville de Thiès de 100 millions par année la ville de Thiès a fait à la Sonatel sur les 1000 mètres carrés que la ñu def leen une proposition de 1000 mètres de 100 millions par année 100 millions par année Sonatel laaj ñu ni ñun est-ce ñun proposition boobu ñun mën nañ koo bind au lieu mu bañ a ci wax ñu ñu bind ko ci kayit signé ko en tant que maire ñu adressé ko seen direction générale ma waaw loolu mën nañu ko jël proposition ni Sonatel 1000 mètres carrés yi nga xamante ne occupé na ko ci digg Thiès ak compte tenu position stratégique bi Thiès am ak investissement yi fa defoon depuis 2002 amortir nañ ko nous leur demandons ñu contribuer ci économie Thiès cent million par année ñu bind leen ko bi ñu ko leen ko bindee waxoon nañ ni dinañ ñu répondre depuis trois quatre jours donc réponse boobu ba léegi ñu ngi koy xaar à ce jour donc jotaguñu réponse Sonatel donc foofu laa ci mën a toll ci dossier boobu ci négociation yi nga xamante ni am nañ ko ak euh, Sonatel bu bu baax a baax contrairement à CBAO CBAO moom mauvaise foi ak mauvaise volonté ci côté boobu ñoom ci la ñu nekk loolu aussi jaat waaye xamal naa leen waa CBAO que ni ñoom nañuy wax bu fekkee dañoo bëgg a des ci sit bi ñu wax bu fekkee dañoo bëgg a jóg ñu wax su fekkee am nañu yéene aussi ñu waxtaanaat ñu wax mais nañu wax dama manière très claire que ni ñoom duñu renégocier bu fekkee loolu mooy seen option bu fekkee dañoo bëgg a renégocier nañ wax de manière claire dañoo bëgg a renégocier bu fekkee dañoo bëgg a jot nañ wax mais foog ñu wax nag bu ñu ci wax nag ñoom dinañ am réponse bu fekkee dañ dañuy toog ca du ñu renégocier dinañu am seen réponse te man maa leen wax ni bu boobaa dinañ am seen réponse bu fekkee CBAO daf ni dafa bëgg a toog ca du renégocier contrat bi bu fekkee loolu mooy option La CBAO aura sa réponse et elle très bien servie. Je m'adresse bien à la CBAO. ndax ci dossier yi ñu am yépp CBAO moo ci gën a def mauvaise volonté loolu jaadu na ñu xam waaye nag la balle est dans leur camp ñaar rek moo mën a am tànk moom day bank baa mu tàlli dañ koy bank baañu baañu tàllal mu am fi beneen dossier bu ñuy tuddee Kajoor Glace dossier Kajoor Glace dossier bu yomb la torop bi ñuy yëkkati Mikelan ñu bëri sax reproché nañ ma lu tax ñu yëkkati Mikelaan bàyyi fi Kajoor Glace waa Mikelaan bi ñuy yóbbu ci yoon seen avocat yi dañuy deux poids deux mesures lan moo tax ñu bàyyi fi Mikelaan mel ñu bàyyi fi Kajoor Glace mel ni dañu singale Mikelaan bi ñu ñëwee recevoir na aussi ki nga xamante ni moo jiitee Kajoor Glace ma ni ko contrairement à l'autre yi nga xamante ni contrat li ci des bëri na ci contrat am na ay rëq-rëq dinañu la bàyyi nga continuer sa activité waaye na la leer ne bu contrat bi jeexee duma ko renouveler wax ko ko ah mu nangul ci parce que booba ñoom yaakaaroon nañ ni dañu bëgg man dama bëggoon a comme ni ma arrêté ka Mikelan bi an arrêté ko man leen noonu dinaa leen bàyyi ngeen continuer seen activité ba mois de juin 2023 bu ñu fa yeggee am li ngeen di fay baaxul parce que 1018 mètres carrés 1018 mètres carrés nga occupé ko ci fay cinquante mille francs ci première année bi 175 000 par mois cent 150 000 francs mais loolu problème la waaye du problème it ndax ku fekkee da nga yem ci 150 000 lay fay 175 000 dafa mel ni donc naan yokkal ma ma bàyyi la fi day nuru chantage du loolu alors que c'est un problème de fond qui se pose ici. le problème de fond qui se pose ici mooy ville de Thiès dafa am yéene récupérer espace public yi mu moomal boppam c'est ça qu'il fait et contre ñu projet Kajoor Glace déedéet kenn waxul ni Kajoor Glace baaxul contre ñu promoteur u Kajoor Glace jotewuñ dara defuñu mais dafa fekk ni espace yi nga xamante ni ñépp ñoo ko bokk ñu war ko aménager oui on me que ni diw bi mu fi ñëw dara nekku fi woon soit d'accord mais la ville de Thiès est de retour ak mbooye fi nekkoon ab àll la woon nit ñi di fi sow fii yëpp lëndëm këriis c'est vrai la ville de Thiès est de retour. La grande ville de Thiès est de retour. Et c'est une ville ambitieuse. ku sa ambition nag yam ci Kajoor Galaas ñu ci lañu dépendre nangul naa leen ko waaye ñun suñu ambition yamul ci loolu te yàlla ñu yàlla may dund ak wér di ngeen gis bu baax def nañu réunion technique ak ONAS parce que ONAS Thiès dañu am chef de bureau bu bees boo xamante ni ñëw na ci saal bi def nañ ak réunion ak moom def réunion de coordination ñun ONAS ak les services techniques des trois communes ci Thiès pour ñu xam nan la ñuy séddoo dëkk bi ci wàllu curage lan la nord di jël en charge lan la est di jël en charge lan la ouest di jël en charge lan la ONAS di jël en charge lan la ville de Thiès di jël en charge et lan la ñuy yokk ren ci prise en charge activité yooyu donc yooyu yëpp am na ba ku ci nekk euh, déterminé wu nga ci par rapport à ça je voudrais vraiment vous, rassurer donc ñun ville de Thiès donc non seulement euh, dinañu def curage mais sur la la la question stratégique euh, donc engagé wu nañ ci aussi jënd bis moto pompe yoo xamante ni yëpp duñu tolloo doole mais pour que ñu mën a intervenir mën a jàppale bu baax a baax askan wi ci wàllu inondation donc je voudrais vraiment vous, vous rassurer sur ces questions-là augmentation des salaire ce qui s'est passé mooy syndicat yi nekk ci maire yëpp def nañu 10 11 13 plans d'action grève ni seeni salaire baaxul dañu bëgg ñu yokk ko ci suñu nit bu ñu sañoon ñu yokk moo ñu gënal ndax augmentation salaire li tax am am solo bu baax a baax dina tax maître les maires yi am ay cadres am ay techniciens de niveau yoo xam dinañ mën a def carrière ci maire yi te techniciens yooyu niveau yooyu ñun dañ ko soxla par rapport ak liggéey bi nga xamante ni moom la ñu bëggal ñu mën a recruter ay ingénieur boo xamante ni ingénieur bu ñëwee il a un bon salaire dina mën a toog ci liggéeyam ko li may wax rek maire yi moom ñu mu daan doxee xam ngeen ko clientélisme bi moom moo ëppoon moo ëpp doole da gis mairie boo xamante ni ñi muy fay ci salaire la ca ëpp sont payés à ne rien faire <coughs> je bien mes mots c'est ça la vérité i comment avoir un personnel performant boo xamante ni dinañ am salaire bu baax mën a def carrière ci municipalité yi ñu mën a am ay techniciens mën a am ay ingénieurs ci ay niveau yoo xamante ni dinañu mën a ŋànk dëkk parce que dëkk du ay caaxaan une ville de Thiès. du ay caaxaan quand ci wàllu aménagement ci wàllu urbanisme ci wàllu culture ci wàllu social yooyu dafa laaj xam-xam léeg-léeg ci yu bëree bëri dafa laaj xam-xam loolu xam-xam moo koy doxal moo koy tracé donc loolu dañ ko soxla moo tax augmentation yi dañ koy rafetlu bu baax mais su gouvernement bi jëlee la décision sans consulter les maires commencé nañ suñu exercice budgétaire année bi mu augmenter salaire bind ñu leef ni nañu yokk salaire yi et salaire yi dañ ko yokk de manière substantielle aujourd'hui à la ville de Thiès pour ñu respecter augmentation des salaires wàllu salaire presque on me demande presque deux cent millions nga war ko def ci salaire là là je dis au gouvernement oui on est prêt à augmenter les salaires mais moom mi augmenter salaire yi qu'est-ce qu'il est prêt à mettre sur la table jàppale ko travailler la question elle est toute simple si le gouvernement nous dit on est prêt à mettre 80 pour cent demain je sors les 20 pour cent on paye les salaires mais yokk leen salaire yi pendant ce temps moom yokkalul dara collectivité locale yi bu courant amul ñu ni ñun maire yi la bu dëkk bi saltee ñu ni ñun maire yi la bu dëkk bi lëndëmee ñun ñun ñun maire yi la ñëpp taxaw ak seeni i ordonnance ak seen problème ak seeni i sollicitation te gouvernement bi yokkul lu mu ciy dugal tant que le gouvernement ne bougera pas sur sa position je ne pourrai pas respecter l'augmentation des salaires et ça je pense que syndicat bi xam na au début on nous a attaqué évidemment un syndicaliste reste un syndicaliste day def loo xamante ni xam na ni demeewul noonu mais peut-être dafa bëgg ñu dégg ko et comme Thiès ak Ziguinchor ñu ëpp visibilité peut-être ñoom ñu jëloon stratégie def li ñu defoon mais xam na ñu demeewul noonu xam nañ ni la réalité xam nañ ni le gouvernement moo war a moo war a yëngu je pense qu'ils ont très bien compris dernière rencontre li ma am en tout cas avec le syndicat on s'est bien compris sur sa xam na ni xeex bi dañ ko war a continuer ñun ñuy jàppale leen ci gouvernement bi moo war a génne une enveloppe jàppale ko municipalité yi parce que à l'état actuel bi de la situation municipalité amuñu moyen supporter augmentation salaire yooyu bañu ñu de mais amuñu ñu lu moyen yooyu Babacar je n'aime pas parler de politique suma euh, ñuy wax en tant que maire parce que je cesse de le dire le maire de Thiès n'a pas de parti je ne dis pas Babacar Diop mais je parle du maire l'institution l'institution n'a pas de parti l'institution n'a pas de coalition le maire n'a pas de sexe Le maire n'a pas de religion, le maire n'a pas de, conf, de, de confession religieuse. Il n'est ni homme, il n'est ni femme, il n'est ni musulman, ni catholique, il est maire, maire de tout le monde. Ce qui fait que bëgguma wax ci politique wala su ma ciy wax dama ciy wax en tant que maire wax ci en tant que maire mooy ñaan jàmm parce que jàmm googu man ci la sama intérêt nekk en tant que maire. travaux yi ñu fi jot a def bu ñu ko lakkoon may ñëw tey jii suba di ko <laughs> di di ramasser waat ñaan jàmm mais jàmm boobu li koy suuxat mooy état de droit waaw en tant que maire je peux interpeller le président de la république de mon pays parce que je le reconnais comme président de la république dans mon bureau vous y trouverez le, la photo officielle du président de mais la république vous est-ce que le maire peut refuser le dialogue mais Babacar Diop homme politique qui porte une autre casquette dans un autre terrain je serai à l'aise pour répondre à votre question j'ai trop de respect Babacar pour les populations de Thiès c'est un privilège immense d'être maire d'une ville comme Thiès il faut beaucoup de respect encore du respect toujours du respect pour ces populations qui m'ont fait l'honneur de faire de moi leur mère. Vous ne pouvez pas mesurer cette tâche et le plaisir, la passion avec laquelle je travaille tous les jours pour être à la hauteur de cette tâche. Et je veux être toujours à la hauteur de cette tâche. Être maire de Thiès, ça signifie quelque chose. Babacar, le jour où nous nous retrouverons ailleurs, dans un espace peut-être qui n'est pas celui-là, où j'aurai ma casquette politique en tant que Guelwaar, sans gants, je répondrai à vos questions. Sans gants. Et vous verrez que Babacar Diop n'a jamais changé ne changera jamais. Je veux une place dans l'histoire de mon pays. Mais si je dois usurper cette place-là, je n'en veux pas. je retourne à l'université en tant que professeur parce que je sais enseigner la philo et je peux m'épanouir avec mes étudiants en tant que professeur de philosophie. Je ne suis pas chez moi. Si je dois avoir une place dans l'histoire de mon pays, je ne veux pas et je ne, je ne dois pas usurper cette place. C'est pourquoi je demande que tout le monde soit candidat, que la compétition soit ouverte à triompher sans péril, à vaincre sans péril, on triomphe sans, on triomphe sans gloire. Si vous permettez, j'ai dit au maire secrétaire depuis deux semaines chez lui, laissez son, son signal depuis deux semaines. Ça vous dit bien à sa place, qu'est-ce que vous, vous, vous, la question. Un maire ne doit pas être séquestré. Un maire, c'est un maire. Il faut sortir d'ici pour savoir ce que signifie être maire. Il faut aller aux États-Unis d'Amérique. Et là-bas, tu comprendras ce que signifie un maire. Ousmane Sonko est un maire, maire de la ville de Giguinchor. Il a des droits il doit être en mesure d'exercer sa mission de maire. Je l'ai toujours réclamé. Sa libération et qu'il ait la possibilité d'exercer sa mission. C'est pourquoi je suis plus loin, que tout le monde soit candidat. Babacar, si je dois avoir une place dans l'histoire de mon pays, cette place ne sera pas usurpée, sinon je n'en veux pas. y compris Macky Sall comme Amadou, vous m'avez posé une question sur l'intercommune, à part ça, sur la Amad, sur la culture. Je pense que nous sommes la seule ville qui a développé un agenda culturel. Nous développé agenda culturel de la ville de de la ville de Thiès ci biir agenda culturel bi mu am ci un rendez-vous important d'une dimension internationale festival international des films francophones de Thiès boo xamante ni Youssou Ndour est le parrain et Mati ñoo xamante ni ñooy le parrain ñu accepte jour bi ñu ma jëkkee rencontre Youssou Ndour jox ko agenda culturel il m'a dit pour la première fois un maire ma donne un agenda culturel à qu'on a commencé a déroulé ay activités yu bëri je vous signale que le vendredi prochain on aura ici ci suñu salle de délibération bi benn projection projection sur Sembène Ousmane ñu ngi ci semaine anniversaire u Sembène Sembène Ousmane semaine du 16 17 ak 18 ki la ñu waroon a dem vers les journées culturelles de la ville de Thiès mais événement yi dëkk bi nekk moo tax ñu suspendre ko mais dañu waroon a dem vers les journées culturelles de la ville de Thiès boo xamante ni lépp li fi ne ci ethnie ci Thiès dañ doon produire muy séeréer noonu di di di di di wolof di manjaat di pulaar yëpp boo xamante ni Sanex moo doon parrain ak Marie Ngoné Dione may profité di gërëm Sanex ak Marie Ngoné Dione ni nga xamante ni porté nañu journée yooyu mu nekkoon loo xamante dañ ci waroon a profité ñaari doomu Thiès yooyu ñun ñu honoré leen mais comme dëkk bi dafa nekk ci ay fitna yu bëree bëri donc ñu préféré xaar donc kon Thiès dëkku culture la ñu ngi waajal aussi 21 juin bi avec les artistes de Thiès Thiès dëkku culture la mënuloo wax Thiès sans sans la sans la culture parce que ay talent yoo xamante ni porté nañ la ville de Thiès dans les ci années yu mujj yi et donc mënuñu lu dul jàppale culture taxawu culture gën a renforcer gën a renforcer culture gën ci dugal alal pour que artistes yi xam et ñi ngi xalaat ni le 21 mooy fête de la musique mais la veille le 20 le 20 ñu am une grande rencontre avec les artistes de Thiès ñu toog ñu waxtaan xam nañ ni aussi bëri na ay rëq-rëq yu am yoo xamante ni suñu diggante ak ñoom mais yooyu yëpp waxtaan rek mooy tax ñu avancer mais nga may ma ma wax tuuti ci sport. ci sa question boobu dina ma may. Du sport, on a pris la décision de revaloriser la Coupe du Maire à Thiès cette année-ci à partir de cette prochaine édition bi ci wàllu nawetaan que mu am doole trop euh, ñi ngi ciy waxtaan ak benn partenaire boo xamante ni sax bu ñu suivre mooy nekk sponsor Coupe du Maire boobu waaw li ma bëgg mooy Coupe du Maire boobu ëpp doole njariñ sax dem phase nationale ba Thiès waay ci boppam xam njariñ bi nga xamante ne am na ci wàllu club yi représenté Thiès ci ligue y a une subvention de 10 millions boo xam ne l'argent est déjà disponible dinañ ko jàppale les clubs de Thiès yi nga xamante ni ñooy représenté Thiès xam nañ ni bariwul waaye nag c'est une volonté rek bu ñuy manifester pour que ñu xam ni ñoom ci dëkk bi lañu bokk ci dañuy représenté Thiès yeneen discipline sportive yi sportive yi nga xamante ni sont reléguées au second plan wala muy ay lutte muy yeneen yoo xam ni ñi duñ ko wax prévoir nañ un budget spécial pour jàppale yeneen discipline yooyu donc néew na fi ñu jëm nga ngay def pratiquer benn discipline ci Thiès nga solliciter une subvention au niveau de la mairie doo ko fi fekk parce que ñooñu ñëpp dañu wax ni même bu doonte juróomi dërëm lañ mbaam baax gàtt na waaye ci jur gi la dañ ko cee dañ ko war a jox àqam ci noonu aussi toutes les associations handicap yi nekk ci dëkk bi ca bindu au niveau de la ville de Thiès toutes les associations vont recevoir à partir de cette année une subvention annuelle boo xamante ne association yëpp dañ koy recevoir loolu xam li may la wax c'est pas de l'argent boo xam ne dañ koy jël c'est de l'argent budgétisé disponible boo xamante ni engagé naa suñu direction des finance pour que xaalis yooyu yëpp sax ñu ñu ñu fay ko donc. Euh, monsieur le maire merci pour ci euh, Amadou question bi nga posé ci intercommunalité boobu intercommunalité boobu ñu ngi ciy liggéey ba léegi di nuyu mon frère et ami Birame Souleye Diop suma xarit traversé situation bu très difficile. avec euh, au plan politique mais ñu ngi déggoo ci jamono bu ne maître Ousmane Diagne di suma xarit moom ñëpp xam nañ sama diggante ak moom euh, au niveau de de l'est donc ak docteur Djité ñëpp xam nañ suma diggante donc réeroo musta am parce que ñooñu ay adjoint au maire lañ au niveau de de la ville ku ci nekk rek mën nga représenter la la mairie donc liggéey yi ñu war a def yëpp ñu ngi koy def ensemble gis nga intercommunalité bi nga xamante ni moom lañ am dafa bëgg dañu bëgg mu aller au-delà même parce que Thiès est une ville leader et commencé nañu des tournées yoo xamante ne en tant que maire je me déplace je suis allé à Morolan je dois prochainement aller à Thiénaba fexe ba yooyu ville yooyu commune yu boole leen ci intercommunalité bi xam nga ko am solo léeg-léeg da ngay voyager en tant que maire nga gis un tubaab bu bëgg a mais souvent il a besoin d' espace trente hectares quarante hectares ay projets yi intéressant mais si on est en convention avec Thiénaba ñun ville de Thiès mën nañu indi un projet ñu waxtaan Thiénaba gagné ci ville de Thiès gagné ci donc loolu lépp pour bu dire que dañuy renforcer intercommunalité bi Jamal TV Pakasen Pakasen évidemment Thiès waa yu bëri xamuñu benn fonds la boo xamante ni état banque mondiale ñoo ko teg pour dimbali collectivité territoriale fexe génne collectivité territoriale yi ci fonctionnement rek ça veut dire nekk collectivité boo xam defoo lu dul fay salaire toog lu ñu la wax nga ne aw ma moyen xale yi war nañoo jàng nga ne aw ma moyen dëkk bi lëndëm na nga ne aw ma moyen dëkk bi tilim na nga ne aw ma ay moyen nit ñaa ngi feebar nga ne aw ma moyen fexe et collectivité yi ñoom aussi di investir investir ci santé investir ci sport investir ci wàllu éclairage mais loolu ay moyens la la boo xamante ni mais pour nga bénéficier wu dafa am ay critères de performance yoo xamante ni banque mondiale ñëpp dañ ciy liggéey ca li nga xamante critères yi am na ci yoo xamante ni kenn mënu ci négocier lu luñ ci négocier même président de la république mënu ci intervenir loolu moo taxoon daaw ñu perdroon donc pour nga bénéficier wu dafa am ay performance yoo war a def donc fonds boobu moom la ñu perdroon daaw ren ñi jotaat ci performance yi ville de Thiès def tax na ñun ñoo ci jiitu ci Sénégal on est premier évidemment wax naa ko keroog ci bi éleveurs yi def seen cérémonie officielle invité ma ci ma dem xam naa ni kontaanuñu wax nañ ma ko yóbbante nañ ko ba tey je ne suis pas élu pour plaire les pour, pour faire plaisir aux Thiessois. Je suis élu pour travailler. Le contrat que j'ai avec Thiès ce n'est pas toog di neexal waa Thiès c'est pour liggéeyal leen contrat bi loolu nekk si vous cherchez un maire un homme politique buy wër pour neexal dugg dans la démagogie dige lu nekkul wala mbuxum il faudra chercher un autre maire man ça ne sera pas Babacar Diop ça ne sera pas du tout moi ça sera une autre personne je sais bien que neexu maire de Thiès Babacar Diop mënuma jël la responsabilité fermer la promenade des Thiessois fermer place Mamadou Dia fermé agora bi pendant vingt jours parce que foire yi c'est vingt jours dañ la naan quinze jours mais dinañ def trois jours installation deux jours de désinstallation xam nga foire bi jeex na def pendant ce temps ku fa bëgg a xadara doo xadara ku am conférence religieuse doo def conférence religieuse xale yi fay ñëw ngoon gi di féexlu duñ am accès à la place famille yi fa bëgg ñëw ngoon gi di féexlu duñ am accès à la place je ne peux pas prendre la responsabilité de donner cette place la a un promoteur 20 jours te du am contrepartie ku ko mën a am ku ko mën a wut nga wuti ko mais moi je ne pas je ne le pas et le minimum que l'on demande nous pensons que aujourd'hui promenade bi bu tey bi du bu démb dañu waxante dëgg la promenade d'aujourd'hui et la promenade il y a huit mois ce n'est pas la même chose tey y a plus de sécurité y a plus d'éclairage les gens viennent ñu jox la promenade ngay def ticket entrée nga bëgg ñu jox la ko gratuitement je ne le ferai pas on peut les accompagner xam nga accompagner leen mooy lan war leen a jox benn place muy promenade bi rek nga boole ci Mamadou Dia boole ci Agora xam ne ay doomu Thiès lañ xam ni métti na loolu mu accompagné du moom dong de am na yeneen i promoteur yi fi nekkoon nee nañ un million lañ leen ko daan joxe soit mais maleeral leeral benn mbir tey su maire liggéeyul ngeen dal ci kaw ñu defu fi dara te pourtant kenn du soucié wu fan la maire di jëlee xaalis wala fan la maire di jëlee xaalis fii dërëmu état dugg fii ci travaux yi ñuy def je pèse bien mes mots léeg-léeg nga dégg nit ci wax pavage yi di wax lu maîtriser ak lu maîtriser wul naan agitib ak nanga agitib dañ koo fay saraxuñu may ñu mani agitib bi ngeen di gis ñuy travail fii travail ñuy travail eh, ñuy liggéey fii bu leen kenn nax état Sénégal defu fi dara fii li ngeen fi gis ci ay travaux muy pavage muy éclairage muy lu ngeen fi mën a gis c'est la de Thiès qui s'est débrouillée pour def ñoo takk suñu ndigg wàññi carburant wàññi recrutement clientéliste wàññi yu bëree bëree bari am aujourd'hui une maîtrise de la masse salariale ici à Thiès li tax suñu pakaseen bi mag mooy li ville yu bëri réussirul ndax ville yu maire yu bëri su ngeen fa demee recrutement clientélisme moo fa ne dangay romb niw ci mbedd mi mu neex la nga dugal ko ba mairie yi fees dell mairie yi defuñu lu dul liggéey ngir fay salaire moi j'ai refusé d'être un maire qui verse dans le clientélisme un projet de transformer cette ville da ngeen ni mandat bi cinq la bu ñu toogee deux ans yéen waa Thiès te gisu leen dara loo xamante ni mën ngeen cee teg seen bët boobaa jarul ma yeggale mandat bi c'est pas yi c'est une délibération du conseil municipal ñiy wax dañoo xam lan mooy conseil municipal le maire du day jóg rek jël ay décision c'est une délibération du conseil municipal conseil municipal boobu mooy fixer nan la ñuy organiser concert nan la ñuy organiser publicité nan la ñuy organiser ay jàng nan la ñuy organiser ay activité ci foire moo xam activité boobu benn jour la ndax am na koo xamante ni ay jàng lay def benn fan la daj la soxla kooku wutul xaalis xadara la bëgg xadara benn fan soxlawu sax benn fan benn ngoon am na koo xamante ni concert la bëgg Wally Seck la bëgg indi Thiès mais li mu bëgg moom nga jox ko place bi mu indi Wally encaissé def ci poosam ca nangu dafay ville de Thiès mais je ne le ferai pas au nom de quoi Si vous êtes prêt à payer des milliards à Wali pour le déplacer, si vous le faites pour les populations de Thiès, n'est que gratuit. Je vous donne la place gratuitement. Si vous amenez Wali Sek à Thiès, si vous m'amenez Youssou à Thiès gratuitement, ma jox la place bi gratuitement ba pare contribuer xale yi Thiès yépp génn féexal seen i xol nit vous voulez amener Youssou Ndour à Thiès amener Wali Thiès dagg say ticket laaj ñi place de promenade bi ba pare nga ni doo fay je ne peux pas le faire très sincèrement ñiy occupé promenade bi di gàmm dem leen service des finance ngeen laaj kayit promenade bi gars yi dañuy fay de ñi koy occupé dañuy fay maire nag mën na exonérer mi ngi ci teg si mais exonération même boobu c'est encadré vingt vingt cinq pour cent léeg-léeg nit ñëw nga xam ne kii day gàmmu peut-être que activité religieuse boo xam ne ngoon lay am ñoom soxlawuñ ca dara lu dul xadara lañ xadara mais nga yombal leen ko wàññi ci taxi yi benn bu fekkee cent mille la mu nekk soixante quinze mille francs loolu bokkut ak activité commerciale ca promenade bi saa soo ko joxee foire di ko tëj lu mu néew néew vingt jours saa soo ko joxee fois di nga tëj promenade lu mu néew néew vingt jours il faut que nit ñi mën a contribuer ci seen dëkk loolu ñuy contribuer ci la ñuy profitoo mën ci jënd làmp mën ci dugal ci njàngam xale yi man ci defar pavage pavage man ci sollicitation yi ngeen di def ci mairie bi sociale nangam ak nangam ñu jàpp ci di leen di leen ko dellu parce que aujourd'hui yàlla dimbali nañu ba réussir nañ lii alalu waa Thiès ñu ngi leen koy sàmmal ci résiliation contrat yi est-ce que dafay menacer les emplois au niveau de Thiès ah ñun de menacer emploi yi au niveau de Thiès tax ñoo jóg wax dëgg yàlla yàq liggéeyu jàmbur aussi taxu ñoo jóg ca manifester nañ accompagner bépp impact même Mikelan bi nga xam ne ñun gagné nañ procès bi je manifeste mon ouverture à accompagner promoteur bi fa nekkoon pour vous dire waaye nag dañu am vision bu sori ci Thiès boo xam ne mën nga koy wan ku say bët baaxul wala rëyul doo ko nangoo gis waaye bu ñu yàlla dimbalee ji liñ leen di projet di proposé ci promenade bii di ngeen xam ni lu daray Kajoor Glace tuutaluñu benn liggéey tuutaluñu benn ambition une ville comme Thiès doit avoir une grande ambition sinon elle n'est plus Thiès bu ñu tuuti bët on est Thiès bu ñu ñàkk ambition nous sommes Thiès bu ñu suufee nous sommes Thiès bu ñu yées nous sommes Thiès la place de Thiès c'est d'être toujours à la première place sinon nous ne sommes plus Thiès ndax conseil municipal bi et informe ci ni ñuy doxale mairie bi ah jugement de mënuloo ko tere nit ñi ñu def ni ñuy wax it am nañu ci droit ñu nekk ci conseil municipal bi ñu nekk ci bureau municipal bi ndax ku mat moom yàlla doo nga ko bind mën a bind moo ko mën a xam ñun ñépp matadi nañ waaye ñu ngi def effort ci li ñu mën ci bureau municipal bi di xam li xew saa ñu lëbbal leen dara ñi ngi def effort di informer la conseil municipal liy xew saa ñu lëbbal leen dara te yàlla nag nit ñi suturaal te yàlla nañu gën a yokk sutura néew na nga ñëw suñu bureau municipal wala suñu conseil municipal ndatetaay wax nga mën a xam ndatetaay ban parti la bokk wala ban coalition la bokk ndey ba wax nga mën a xam ndey ba ñii di wax ban parti la bokk wala ban coalition la bokk benn parti rek lañu am seen parti mooy Thiès benn coalition rek lañu am seen coalition mooy Thiès loolu suñu borom mi ñu ci suturaal ci suñu conseil municipal ñun amuñu lu ñuy nëbb conseil municipal bu Adja Fatou waxee nga ne Adja Fatou moom xanaa daa bokk ak kër Diop parti te bokkut ak kër Diop parti Thiès rek a nekk ci xol ñun amuñu dara lu ñuy nëbb gis nga keroog ba ñu réunion ça me permet de parler de Mbourkat parce que yàlla def dafay def y a pas pour man booy jiite dëkk bu mel ni Thiès y a pas de tabou tu dois être en mesure de répondre sur toutes les questions sur toutes les questions parce que nit ñi mënoo leen di jiite ba pare am loo leen di nëbb sur toutes les questions tu dois être en mesure de répondre ba demee gouvernance ñu réunion réunion ba jël une partie ci terrain yi fa desoon ñii ni toutes les communes impactées lii Fandène lii Kër Moussa lii Thiès Ouest lii Nangam ñi ni ville de Thiès cent vingt terrain nëbbuma ko de jëluma cent vingt terrain yooyu ni man ak sama cabinet wala am lu may nëbb nëbbal dama woo la conseil municipal ba ñu ñëw man leen lii moo fi ne woo le bureau municipal ba ñu ñëw les adjoints au maire man leen lii moo fi ne woo waa Thiès ñu ñëw man leen lii ñoo fi parce que bu doonte benn terrain laa duma leen ko nëbbal dinaa woo askanu Thiès man leen benn terrain moo fi disponible te nag terrain yi kenn du ci jaay benn kenn du ci jaay benn lépp dinañ ko delloo doomu Thiès ndax man soxlawuma ci benn terrain soxlawuma ko benn metre carré bu gën a néew soxlawuma ko terrain yooyu ñu si nga xam mooy jaar ci loxo mairie bi dinañ ko teg de manière transparente publier la liste ñi xam ñi ci bénéficier wu ñëpp ay doomu Thiès dong lay nekk euh, FERA bi question bu am solo la léeg-léeg nit di wax ci lu mu maîtriser wul lu mu xamul bon dafa xew nag kon <laughs> ñu nangu ko ñun ñi politique Eh, gis benn waaye mu dem ci réseaux sociaux yi di live di wax loo xamante ni yàlla xam nañ xamu ca dara dara la ci xam moom ay ay vues rek la cay wër dafa xew moo tax ñun ñi politique aussi dañ koy nangu na nga gis benn article dans un site bu crédible mu wóor la ni article bi demewul noonu mais ka ko bind il il cherche autre chose que la vérité wóor na ko ni moom wutul vérité li wóor mooy moom wutul il cherche pas la vérité parce que bala nga koo bind ville de Thiès nekk fi am équipe de communication nangam ak nangam yow nga nekk ci dëkk bi nekk journaliste nga am tous les moyens pour am toute la bonne information nga dem mais si vous cherchez à nuire Babacar Diop à l'atteindre je pense que c'est peine perdue parce que yàlla dimbali na ma suturaal na ma am naa carapace ndax ma choisir la politique et je me suis préparé pour faire de la politique moralement intellectuellement socialement FERA FERA dafa am directeur bu bees FERA mois de décembre la daan jeex 31 décembre le contrat yi bu daan jeexee day nem renouvellement automatique ville de Thiès fay FERA état du Sénégal mooy fay mais ville de Thiès mooy mooy choisir ñuy liggéey mooy leen di tànn moo koy proposer état du Sénégal defar contra yi wax naa leen mbirum Ferra daaw ni ma leen fi fekkee sama prédécesseur signé leen ca mandaam jeexoon na malgré tout ma bàyyi ñëpp dàq ñu kenn bi directeur bu bees bi ñëwee fekk contrat yi jeex convention yi li ci daan am mooy convention yi c' presque automatique dañ daan toog un mois quelques semaines ñu renouvelé ko directeur bu bees bi bi mu ñëwee lu ñu wax moom mooy président de la république moo ko wax il faut ñu yokk payooru waa Feera moom loolu la ma wax loolu la ñu wax ñun leen la bien que je l' interpelle le le directeur général euh, bu Feera doxalinam bii baaxul ki fi nekkoon moo ko ëpp ouverture maire yi mën a am accès ci moom ñu wax ak moom kenn mënul yegg ci moom par rapport à beaucoup de choses mënuloo gérer une direction aussi stratégique aussi importante que FERA nga tëju enfermé wu kenn mënta agsi ci yow je le dis de la manière la plus claire kenn moomuñu nous on est là pour dire les choses il vient d'arriver mais sa démarche elle n'est pas bonne. pourtant il raison de plus. et devait et devait et c'est pas moi simplement dama koy wax donc. parce que suñuy def pied de grue foofa du suñu bopp mais c'est des intérêts de nos vies structure état yi ñuy liggéey li ñu ci def liggéey bu baax yëpp dañ koy wax UCG day def liggéey bu baax dañ koy wax impôt domaine bi nekk Thiès dañuy def liggéey bu baax dañu koy wax dañu ci jàppale trésor ñu ngi def liggéey bu baax ñi fi représenté état di préfecture di préfet di gouverneur yàquñu liggéeyu maire yi loolu dañ koy wax di ko assumer mais bu amee ñoo xamante ni nekkuñu ci jàppale liggéeyu maire yi aussi dañ koy wax ñoom dañuy waxoon ni dañuy yokk payoor gi et le président a donné des instructions pour ñu yokk payoor gi dañu wut ay moyens avec le ministre des finances parce que FERA ñenn ñi soixante mille ñu nekk superviseur quatre-vingt mille francs ñeneen ñi deux cent mille francs donc ay niveau mais ñi ci ëpp mooy les soixante mille ñoom li ñu waxoon mooy dañ koy yokk ñu tergiversé ci loolu xaarloo ñu ci xaarloo ñu ci deux trois mois quatre mois ba situation bu bees bi dab ni loo xamante ni décembre la daan jeex janvier février nga tàmbali liggéey bi bi contrat FERA boobu di jeex dafa am ay tâches quotidiennes yoo xam ni defaraat un peu ci bâtiment central beeg yooyu ñun ñu proposer ci ñu réduire trois cent cinquante nga réduire ba 60 ñi leen dañ leen di maintenir moyen naa ñu xaar yéen parce que FERA bi ñu mu doxee dañ koy restructurer personnel bu yàlla dimbalee ñu re parce que boobu ñu ngi woon ci perspective ni décembre janvier dañuy reprendre at quelques semaines ngeen accompagner ñu. su feeraa bi ñëwee programme bi ñëwee bala ñuy recruter kenn di jël kenn les 60 là ñu jël leen ñu proposer leen ko ñu xaar ñi ci des ñëpp ñu wax leen ñu arrêté mais 60 yooyu tey jii bien que le nouveau directeur wàññi na noo 350 jox ñu 150 li may wax sur le nouveau directeur ñun on était à 350 mu wàññi ko ba cent 150 mais sur les 150 là automatiquement d'office ñi fi nekkoon dañ leen di jël. d'office d'office en même temps xaalaat avec nos service situation bi nga xamante ni de fait FERA moo ko créé ñu toog trois mois vide boobu mu nekk un vide comment nous nañ leen leen mën a accompagner à ce niveau et jël engagement mën leen accompagner je salue Baye Serigne li nga xamante ni aussi gisuma ko woon di adjoint au maire di œuvrer lu am solo ci culture Thiès di ñu jàppale ci liggéey bi ma ngi koy nuyu bu baax ci FERA boobu EMG EMG am ma lu ma ci wax parce que Mbaye Gueye e ci boppam wax na ma ni ma pare na ci place boobu ka nekk ci boppam informé na ko moom jël nay otom ne ko informé ko ne ville de Thiès dafa soxla place ñun ñun ku ñuy wër wër ñu ci intérêt Thiès ci intérêt ville de Thiès yàlla xam na ni wees nañ di yàq liggéeyu jàmbur ci suñu coobara bakkan yàlla nañ ci yàlla sutural dawloo ñu ko yàlla nañu yàlla musal ci yàq liggéeyu jàmbur ci coobare ci tey ndax man maay meer déedéet waaye lii ñu ñu cees dénk di mairie bi wutuñu ci alal wutuñu ci ay kër yu rafet wutuñu ci ay oto yu ñuy dawal lenn rek lañ ci wut mooy am ci ngërëmu waa Cees kese lañ ci wut niñ ko ci mën a amee nag mooy fexe jamono bu ne lépp luy intérêt Cees te ñu identifier ko wala lépp projet boo xam xam nañ ko muy intérêt Cees lu coow bari bari bari lu xoqtal bari bari bari lu menace bari bari bari c'est peine perdue je vous le dis de la manière la plus claire ñaar moo mën a am on est engagé ci projet pour liggéeyal waa Thiès buñ demee ba xam ni ñun suñu action amalatul njariñ liñ bëgg pour Thiès changer mënuñu koo def dañ ko fi bàyyi ñu ko liggéey fii dellu université dem jàngale ji ñun yaakaaruñu mairie pour dund changement nag du yoon transformation du yomb ndax am na lu nit ñu tàmboon liggéey lañu gëm man duma maire buy baatare aw ma lu ma baatare duma maire buy maye xaalis awma ma ko je dois être clair ak waa Thiès baatare ak puukaréew nii laa mel booy génn mbooloo topp la li ma diggaale ak waa Thiès mooy liggéey ca fas yéene naa leen liggéeyal ba nga xam ne liggéeyal naa leen loolu lañu ñu séq ci travaux yooyu bi ñuy ñëw fekk nañ fi dëkk bu lëndëm artère principale waxoon naa ko waxati ko ñu terminer première phase éclairage public boobu ah tey jii am na amélioration bu mat bu ci am ci éclairage public gis ngeen artère principale yi muy avenue Caen di avenue Léopold Senghor di ay Nina Fall di Ousmane Ngom di Jean Collin di docteur Dieye di marché central di sëriñ Saliou Touré Murta sëriñ Murtada Mbàkke di Thierno Oumar Foutiyou Tall ak ay quartier yoo xamante ni surtout balaa ba gis ngeen éclairage après première phase boobu jeex di promenade bi aussi gis ngeen tey jii ñu war a engagé deuxième phase deuxième phase boobu ci première phase bi defoon nañ ci soixante cinq million mooy travaux yi ngeen gis ci éclairage def nañ ci cinq millions cinquante millions yi mooy liñ ci jënd ci ay lampes yeneen 14 millions yi mooy travaux yi yi nga xamante ne mu doon 64 millions de manière plus précise ci deuxième phase bi ñu war a tàmbali ci mois de juillet bi deuxième phase bi ñu ngi ci 175 millions d' investissement ci éclairage public suñu yéene mooy ville bi génn ci sa ci ci ci artères yi wala marché yi nous voulons éclairer tous les quartiers de Thiès les quartiers périphériques quartiers yi nekk ci périphérie bi yaakaar na ñoom bokkuñu Thiès quartiers yooyu nekk ci lëndëm quartiers yooyu la ñu bëgg a éclairer ci deuxième phase bi chaque année au minimum à partir de désormais on mettra au minimum 200 millions ci éclairage public ndax couverture universelle fexe quartier yépp am éclairage quartier yépp leer ndax loolu dafa bokk ci sécurité day sax nit ñi mën a génn deuxième phase du éclairage public boobu lancé nañ ko ak marché bi ci ci d'ici fin de juillet bi yaakaar nañ ni travaux yi dina mën a commencé bu matériel bi ñëwee en tout suñu équipe technique yi dinañu liggéey ak les communes dinañu liggéey ak les délégués de quartier dinañu liggéey ak quartier yëpp demande yi nag bëri na trop ku ci nekk sa quartier nga gis waaye nag ndar xëyul xëy sotti waaye ku amul rëy déwénee yaakaar naa ne di nga am ci programme parce que suñu yéene mooy quartier yépp éclairage public ñëw ah bu loolu weesoo aussi gis ngeen pavage bi reprendre na coow li aussi bari woon na ci dossier pavage boobu waaye mu ànd ak projet bu mag bu ñu am ci projet réhabilitation de la promenade des Thiessois jardin Michelan bi jardin bi fi nekkoon dañ koy indiwaat dinañ ko defaraat dina rafet dina yànj dina leer dina am sécurité ba ku dëkk Thiès doo ñee kenn ku dëkk ci benn ville ci ci Afrique parce que fi Michelan nekk loolu moolu mooy xolu Thiès dinañ ko defaraat jet d'eau ba fa nekkoon dina ñëwaat am na ay xalaat yu bëree bëri yuñ ci am waaye duñ yam foofu de dinañ am ay projet yoo xamante ne prolongement promenade bi ba ci agora bi yooyu yëpp dinañ ko reprendre dinañ amaat salle de cinéma au niveau de Thiès projet yooyu yëpp dëxal nañ ko dinañ am benn fora bu mag benn forum bu mag a mag boo xamante ne bu ñu tabaskee ba pare dinañ ci ànd ñun EPT école polytechnique benn cabinet architecte ak woo ci ndaw Thiès yëpp ñu présenter leen ci ñu waxtaan ci parce que dina baax aussi ñu ciy déglu. askanu Thiès ci projet yi nga xamante ni yépp dañ ko ci bëgg a réaliser ci ci zone boobu yépp ci bokk ak benn espace des enfants bu mag bu yànj yooyu yépp ay projet la yoo xamante ni dinañ ko présenter boo xamante ni ku dëkk Thiès ci boppam dootul ñee benn nit ku dëkk ci beneen ville ca yooyu dinañu ko réaliser am nañu vision bi am nañu volonté bi pakaseen bi di ñëw ak li ñu ciy am ci xaalis ak yenn négociation yi nga xamante ni ñu ngi koy def ak ay grandes entreprises yoo xam ne ñu ngi waxtaan ak ñoom incha allah on aura les moyens de financer ces projet la ci wàllu formation at mi ñu génn def nañ cent vingt millions ci formation ndaw cinq cent cinquante xale yoo xamante ni ville de Thiès wutal na leen ay bourses pour ñuy jàng cinq cent cinquante xale ci vingt trois établissements vingt trois établissements yoo xam ne signé nañ ak ñoom ay convention cent vingt millions lu bokkut ak subvention yi nga xamante ni les amicales des étudiants yi nekk ci université yi dañ koy jot muy amicale des étudiants thiessois yi nekk Dakar yi nekk Bambey yi nekk Ziguinchor yi nekk Thiès cent vingt millions waaye suñu yéene wees na lool l'année prochaine ci budget bi ñu jëm ambition bi ñu am mooy doubler enveloppe bi ñu def ci njàng xale yooyu doublé ko et bu yàggul bi ma mujjee voyagé maa ngi dajee ak le directeur de bourses bi nga xamante ni moo jiite direction des bourses demoon mission Paris ma koy xalaat ni ko de ni ville de dakaar di joxe ay doomu dakaar ñuy dem France wala bitim réew ay bourses ñuy jàngi ñun ne Thiès am na ñu ambition jox doomu Thiès bourse mu dem jàngi France wala États-Unis mën a ñibbisiwaat jariñ Thiès ñu ciy waxtaan ñuy xool ay créneaux yu ñu mën a jaar. ba fii ci at yi di ñëw Thiès mën a jox ay doomu Thiès bourse ñu mën a dem jàngi ñu ciy waxtaan loolu aussi ci suñu yéeneel ci wàllu santé faju dafa jafe gis ngeen ko boo nekkee maire jamono bu ne da ngay gis nit ñëw monsieur le maire ordonnance monsieur le maire analyse rajo surtout ñu néew doole surtout jigéen ñi nga xamante ni ñoo nekk ci quartier périphérique ñi war ci tabax euh, ay réponse institutionnelle ndax poste mënta faj ñu feebar ñëpp ci dëkk tey jii ñu ci liggéey ak couverture maladie universelle ba ville de Thiès am subvention bu mu teg ci table bi boo xamante ni lu mu néew néew mille familles dinañ leen inscrire ci première année bi et l' argent disponible projet yi ma leen di wax c' est de l' argent disponible boo xamante ni voté nañ ko dugal nañ ko ci budget donc au plan technique rek moo des ak euh, donc CMU bi commencé nañ mutuelle de santé boobu commencé nañ ci liggéey def nañ ci ay réunion yu bëree bëri mais programme bi dina commencé ren boo xamante ni su ma 5000 familles dinañ leen dugal ci ca am na ñu yéene l'année prochaine ñu def le double parce que il faut ñu jàppale nit ñi ñu mën a faju ci jigéen ñi aussi ñu nekk ci ay jafe-jafe yu ci wàllu ndóol ci yu baree bari ñu bëgg jàppale jigéen ñi ci auto Euh, nomisation économique maanaam ci ñu gën a c'est dañuy am ay projet yu bari jigéen ñi mais du ñu am ay moyens yu ñu ko financé te souvent am na ci ñoo xam li ñuy laaj bariwul am na koo xamante ni bu amoon vingt cinq mille francs financé projet am na koo xam bu amoon cinquante mille na koo xamante ni bu amoon cent mille financé projet aujourd'hui nous avons un mécanisme qui nous permet de lever deux cent millions de francs deux cent millions yoo xamante ni dañ ko jagleel financement des femmes des regroupements femmes mais financement bi du nekk individuel ay regroupement la on mettra un mécanisme jàppale jigéen ñi formaliser leen formaliser leen organiser leen wutal leen ay papiers ñu jox leen financement bi te financement bi du bokk ak yi ngeen di dégg yoo xamante da ngay dem buñ na naan 100000 nga boo dikkee boo amee mille yi 60 euh, dañuy jël 30000 yi dugal ko ci mbirum papier déedéet ku ci nekk li nga war a am bu dee 100000 francs di nga jox sa 100000 francs donc projet bu am solo la. altine bii di ñëw ci ngoon war naa ci am benn réunion de partage ak les femmes leaders de Thiès projet bi du projet politique politicien bu ko jigéen ñi jàppee projet politique politicien dinañ yàq projet bi seen projet la ndax li tax projet bi am solo première phase bi suñ ko réussir parce que li tax may wax loolu mais Sénégal bu ab maire wala benn politique yore benn projet na ah yaakaar nga dinañu fayoo. moom day politique maire day politique ñi ma wu ñoo fayeeku déedéet bu leen xalaatee noonu seen projet la dina projet bi am solo bu projet bi réussir fii la l'année prochaine mën ngeen a lever 2 milliards 3 milliards ci Thiès ngeen financer seen i activité te boobu baa dootu leen namm dara boobu baa jigéen ñi dootu leen namati dara loolu moo tax projet bi am solo ndax mécanisme yi ñu war a jaar pour que ngeen am deux cent ngeen am deux milliards trois milliards ñun xam nañ ko mais première phase bi dañu bëgg dañu bëgg a def ndànk ba nit ñi gën a xam projet bi ba gën ko miin ba lépp gën a dëgër bu ko defee nag année bu ci topp rek ñu ñu yokk ci jigéen ñi loolu aussi ay projet la yoo xamante ni ñu ngi ciy liggéey beneen projet bi mooy les Jakarta ñoom dañoo bokk ci dëkk bi di une force réelle di indi lu bëree bëri ci dëkk bi mais kenn boolewu leen ci dara plus de mille xale yor ay moto nekk ci dëkk bi di dugal ay dépenses ci dëkk bi di yor ay kër ci dëkk bi di boot njaboot ci dëkk bi di tedd yaakaaruñu kenn seen moto lañ yaakaar conditions yu jafe ba pare di dimbali ay nit. projet yoo xamante ñu ngi ciy liggéey bu yu sëri pour ñu organiser leen ñu jàppale leen ñu am assurance vie ay assurance vie ñu fexe ñu am ay casque ñu am ay gilet ñu identifier leen ci dëkk bi bu ñuy dox ñu xam leen ni ki couleur taxi yi am taxi kuy dawal Jakarta aussi ñu am ay gilet yoo xam dañ koy sol ñu xam leen ñu identifier leen donc loolu defaraat seen garage yi ville de Thiès am na ci projet bu solide dëgër ak un partenaire bu solide dëgër yoo xamante ni am nañ plusieurs réunions avec les moto Jakarta fan yi di ñëw dinañu gën a avancer ak ñoom mais am na xaalis boo xamante ni pare nañ dugal ko ci am na partenaire boo xamante ni pare na aussi ñu jàpp ci moto Jakarta yooyu conducteurs yi am beneen projet bu mag ñu mooy Thiès xam ngeen ko xam Thiès xam démb les feux tricolores bi ñuy expérimenté Sénégal feu tricolore ci bëri Thiès lañ ko tàmbale mais gis ngeen circulation bi Thiès ni mu mel léegi anarchie bi ci am tableau de signalisation amatul dara amatul ñun ñu am yéene indiwaat les feux au niveau de la ville de Thiès liggéey nañ ci projet yooyu ak partenaires yoo xam ne def nañ ci ay proposition waaye aussi ma def option ma ni EPT ginnaaw école polytechnique bu Thiès ñu ngi biir Thiès. ci ay boroomi xam-xam ay ingénieur liggéey ci projet yu ne ñoom ñu am ay laboratoire yoo xamante ne mën nañoo liggéey ci loolu pourquoi pas au lieu ñuy jël xaalis bi di ko jox benn ku nekk extérieur wala benn entreprise EPT ñu dem waxtaan ak ñoom ñun li ñu mën a mobiliser pour ko projet boobu mooy des feutres colores yu ñëw EPT école polytechnique bu Thiès daal ñu ciy jàppale ndax école polytechnique bu cees di créer di tabax ay ingénieur di former ingénieur ñu ngi biir Thiès ba donc am nañ ci waxtaan yu ñu ci tàmbali ak ñoom lundi prochain à 10 heures la ville de Thiès am na une visite officielle officielle bi nga xamante ni le maire accompagné de ses adjoints mais au maire et de son administration dañuy dem EPT pour que projet boobu ñu mën ci avancer bu baax baax ba Thiès mën a amaat ay feux tricolores comme les grandes villes parce que nous sommes une grande ville loolu aussi bokk na ci projet yi nga xamante ni donc avancé nañ ci bu bu bu bu bu baax a baax a baax ci yenn ci projet yu bëri yi nga xamante ni ville de Thiès am na ko moom laa ci bëggoon a waxtaan ak yéen ginnaaw bi nga xamante ni maa ngi woowaat ki ñaanaat doomu Cees yépp yi nekk ci biir réew mi yi nekk bitim réew ngeen ñëw jàpp ci liggéey bi ngeen ñëw jàppale ñu ci liggéey bi ci seeni ñaan ci seeni xalaat ci seeni jàppale ndax Cees moo toll noonu moomuñu dëkk bi waaye am nañ yéene nekk Baye Fallou waa Thiès moomu ñu dëkk bi waaye am nañu yéene nekk surga waa Thiès moomu ñu dëkk bi waaye am na nañu yéene nekk al toppe waa Thiès buñ ci dee dégg ay saaga ñu nangu ko ci buñ ci dee dégg ay xas ñu nangu ko ci ndax li Thiès def ci ñun mënuñu ko koo fay li liñ ko mën a faye mooy mel ni taalibe buy topp sëriñam di ca wut ngërëm mel ni Baay Faal bu laxasaayu topp ab sëriñam di ca wut ngërëm kon ñun nekk nañu Baay Faalu waa Cees asalaamaaleykum wa